moo ñu yàgg dalal ci ci barab bii tey sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu njabootu maam borom Touba gi ñu fekk ci barab bi yëpp ku ci nekk ñu ngi lay nuyu di la ziyaare bu baax a baax a baax maa ngi lay nuyu ci sama tur ak turu délégation bi ma àndal yëpp te Alaaji Moodu Mbaay lim leen léegi ñii bàyyeekoo ci kër gi ñuy wax ONAS mooy fa ñu ne ñii bàyyeekoo ci sama njabootu politik gi may àndal di yëngatu di jàppale son excellence le président de la république euh, Macky Sall ñi ngi amaat mbégte sëriñ bi ñëwaat ci place bi ba noppi nag fekkaat la fi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 fii ak gi itam du ñu fi génn fi la ñuy des ba lépp loo xam ne war nañ ko mën a saytu toppatoo ko ba ndox mi wàññeeku incha allah taala nañ ko def ndax dëkk boo xam ni barkee fi wàcc ay millions ngi doomu aadama yoo xam ni kenn xamul li fu toll di fi di fi wàcc di fi def ay fan dëkk boobu war nañoo fexe ba bu ñu ñëwee ñu nekk ci condition yu baax en ñun ONAS ci ndigal yi ñu jox mooy fexe ba condition yooyu baax te ci la ñuy liggéey guddi ci la ñuy liggéey bëccëg matale lépp nag yombul sëriñ bi waaye ñu ngi ciy jéem ci suñu yéene ak suñu xam-xam ak suñu man-man waaye li ñu am yaakaar daal mooy itam ñu mën koo wax mooy bu projet bi jeexee incha allah am na barab yu bari yoo xam ne ñu doon am ndox am nañ yaakaar dana wàññeeku foofu waaye nag du tax mu jeex. ndax Touba mooy dëkk bu ñu tollu di dëkk buy màgg di dëkk buy yaatu donc faw toujours projet yi ñu koy continuer di ko dolli di ko dolli di ko dolli ndax dëkk bi mooy màggee noonu loolu ci gàttal laa bëggoon a wax sëriñ bi ci fi ñu toll ci wàllu liggéey bi di la talal suñu ay loxo ni ñu ko daan defee démb ak bëkki démb nga ñaanal ñu yàlla kàttanal ñu ba yéene yooyu ñu am yàlla suñu borom dimbali ñu ba ñu yeggali ko ak jàmm ah contexte bi ñu ñëw nag ku ne xam na ni contexte su nangu ñaan la ndax ñu ngi ñëw ci fani màggal ku ne xam na sëñ bi lim waxoon ci bis boobu loolu moo tax ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw fi ci turu de général ONAS waaye ñëw fi itam ci en tant que doom doomu kër gi en tant que doomu dëkk bi en tant que doomu sëñ taxa ngir ngir barke boobu di fi wàcc fan yi yàlla suñu boroom mën koo sëmbatal ci suñu jëmm waaye sëmbatal ko ci délégation bi nga xam ne yëpp moom lañu àndal kon ñi ngi tàllaat suñu loxo nga ñaanal délégation bi ma àndal ñoom ñëpp yàlla defal leen tawféex defal leen jàmm te ñu màggal ci jàmm nee mi ngi leen di delloom nuyoo bu baax di ko teg ci directeur général ONAS di Mamadou Mamour Diallo ak mbooleem ñi nga àndal ñëpp ci liggéey bi ne dégg na kàddu yi bu baax ne li ci ëppit nag ci kàddu yi leeral nga ko waaye li ci am solo rek li ma leeral léegi man mii ni sëriñ bi wax nag ko ne loolu doyoon na sëkk ne bu la xisee ba Cheikh mun Muntaxa seere rek ne kenn mënta wax kàddu yu këpp xanaa jotti liwaat la cant ak ngërëm ci sa taxawaay ndax nit kat bu jëfee Cheikh Abdoulaye daf daa wax ni man duma gërëm ku ma defalul dara waaye nag buñ la joxee liggéey bi ne Mamour da nga cee wane Pastef bu rëy rëy wane ci yitte ju wane ci dogu wane ci bëgg ndam ne loolu nag yëg nañ ko bu baax ne ñëw nga fi yoon boo xam ne bii moom mi yëgaloo ko ko ay yooni yoon na yaa ñëw xoolal sa bopp ci liggéey bi ne li ci am gàllankoor it nga doxal ko sa bopp ne loolu nag yitte la ne loolu nag béttuñu ci yow nag ndax ba ñuy xam Mamour yàgg na waaye li mu xamoon ci yow rek ne moo ne ci yow xam na ceb xol bu yaatu xam nañ ca yéen a ju rafet waaye xam nañ ca fonk sëriñ Touba te liggéey bi ñuy def Touba nag da nga koo def sa mbirum bopp moo tax nga taxaw ci taxawaay bii nga taxaw ne ndox mi moom li mu nangu ci dëkk bi daa bari waaye def nga ciy jéego ba woyofal na ko nee yoonu mbàkke wi ci amoon jafe-jafe mooy fi ñu daggoon fan yi fan yi weesu rek bu tawee diggante fi mbàkke mën nga koo dox lopp waxtu wala booy dem te royeg si waaye bi pompe yi baaxee bi pompe yi baaxee ku yegsi rek jàll loolu nag yitte ju réy la ndax pompe boobu nga fi indi ñett defe na ñaar la wala ñett la ci ñett wala ñeent rek bëriwu fi daal ñu indi fi kon ñaar Touba loolu yëpp ngir woyofal métti su nit kon ñu ngi lay sant bu baax di la xamal ni sëñ bi kat nee gis na yitte ji nga ci def léegi léegi saa su rombee barab gis ca liggéey ba dara du ko du ko jaaxal du du jaaxle lu ko jaaxal ne bu la wooyee fa saase nga def ci yitte fexe ba la ko loolee ko jaaxal saafarawu ne fan yi am de bis am lu mu la ciy wax nga wax ko ci lu xoromu loolu mooy kat ndakke saafara su jur jàngoro ne loolu nag waaye fa saase rek nga def ca taxawaayu yitte ba loolu saafarawu kon ñu ngi lay santaat bu baax ndax gis nañu yitte ji nga ko def ndax yeggoon nga ci wax ko ni ko ñetti projet yi bu sottee ca may loxo rek sama mission mat na benn bi Touba la loolu lépp yëg la te xam na ni lu dëggu la ci yow kon ñu ngi yemale foofu kàddu yi